tey jii nag di anniversaire am euh, fukki fan euh, ci euh, weeru juin moom gën àddina gane see àddina cinquante 1952 tey jii tamit cettiwaawan tey jii ñu koy sàggaraat bu baax a baax ci loolu nga xam te ni moo di ay kàddu yi mu fësal mu mel ni déglu nañu li nga xam ne moo di kàddu yi mm-hmm. jëm ci lii di relation bi am ci diggante peuple bi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo leen di njiite lan mooy li nga xam ne moom mooy euh, indi loole nga xam ne mooy xëccoo bi am seen diggante diggante population bi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, ñi jiite ci kàddu yi fësal na ci li nga xam ne nii moom mooy natt bu njëkk moom mooy yow mi nga jiite ñi nga jiite déggaluñ la wala sax lañu la nga bëgg ñu mel ko meluñu ko mhm. loolu doy na nattu ci li nga xam ne moom la njëkk daal di euh, njëkk wax ci loolu nga xam ne moom moo di wàllu xëccakoo bi euh, di leneen loo xam ne teg teg toftal na ci mooy loo xam te ni jëm na ci borom euh, ki nga xam ne moo jiitu moom jiitu na waaye population bi na mu mel mu ñoom bëgguñu ko coow daal di am beneen bi ci topp mooy euh, fa nga xam te ne ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk day xëcc jëmale ca sa boor bu boobaa nag pëccëxoo daal di am ñëw na ci lii di wàllum démocratie participative bi nga xam ne nii nit ñi amuñu amuñu culture boobu parce que gis nañu ne fu ñu Sénégal ak yeneen dëkk yeeg dëkk Afrique yu ci bëri boo ne démocratie boo xoolee ba ci biir am na loo xam ni moom mooy euh, frein bi moom mooy démocratie bi nga xam ne moom la ñu euh, moom la ñu teg nekkul démocratie bi nga xam ne moom la ñu soxla dëgg ngir ñoom ñaar ñëpp ñu mën a waxtaan ba ba jubboo ndax bu ñu gisee tey ji dañuy teg ay loi yoo xamante nii njiit yi euh, dañu koy teg sans ñu am aval population bi wala ñu teg ko population bi taxaw daal di bañ te bu boobaa problème day am gis nañu ko fii Sénégal chaque jour bu ñu tegee loi da ngay dégg nit ñi génn ba muy indi ay manifester que euh, yu kenn xamul te bu boobaa loolu day indi yàqu ci réew mi daanaka yu bari yoo xam te ni dañ ko naan euh, gis ne daawul am sax léegi day gën di fës gis nañu ne léegi njiitu réew yi dañuy faral di génn population bi di leen sànni yenn baat yi day gën di bon réseaux sociaux yi da ngay gis mhm. yenn saa ñu yekk loo xam ni njiitu réew mi daanaka musiba la gis nañu rek bi si mujj euh, fële ca France gis nga dañu def euh, Emmanuel Macron mhm. loolu yëpp tamit gis na ci dañuy dem dem ba population bi léegi ñooñu gën am solo moom mooy ne yow mi nga xam ne yow yaa jiite am na benn hauteur booy am am na nooy comporté woo sa population dañ lay bëgg waaye tamit dañ lay déggal parce que dañuy xam ne kii kat lim ñu bu buñ ci jaaree dina baax te bu boobaa euh, waxtaan day am lépp lu ñuy teg rek ñu waxtaanee ko ba daal di ci ànd daal di euh, jubboo mooy ka jox kàddu gi Cheikh Bara mu njëkk ci sànni kàddu moom mi nga xam ne mooy Serigne Moustapha ak euh, tey jii di bésu anniversaire am aussi. Mm-hmm. ak kàddu yu mu fësal léegi. Euh, kilifa googu nga génne léegi ci image bi muy Serigne Moustapha. yàlla guddal fanam. te may ko wér. te liggéey yi mu yanu yëpp suñ borom wayafal ko ba mu yëggale ko ci jàmm. Mm. di ko ñaanal njabootu Moustarchidine yëpp. di ko xam ne daanaka dafa maanaam li ñuy tuumaal xutbu xutbu samaan nga xam ne dañ naan day tiim àdduna comme ku tiim palaat. parce que daanaka sëriñ Moustapha boo xoolee ay waxam amul lu ñuy wax actualité waxu démbam ak waxu tayam daanaka benn la parce que wax jii mu wax wóor na ma ne soo ko aree su su xamoon dat bi dat bu sori lay doon waaye boo jëlee max naa mu wax mi day mel ne tey suñ problème mu tey moom moo tax mu di ko wax di koo xam ne tamit euh, mm-hmm. dégg gi mu dégg alxuraan tamit maanaam euh, kawe na parce que aaya boobu mu doon jàng asaaban min fawqikum googu euh, ni mu ko firee da romb aaya bi bis bu nekk mhm. waaye ni mu ko firee daanaka doo doo sa xel du daj loolu mukk mhm. waaye bu ko firee rek dangay ngay yëg ne ndekete yàlla fii lay waxee loolu nag dafa nekk loo xam ne ah, am njàng nii rek mayewu ko waaye jaamu yàlla ak leer ci biir xol mhm. moom mooy firi alxuraan euh, li mu doon wax léegi nag mooy kilifa goo xam ne dalay jiital ba noppi maanaam melut na mu war a mel loolu li tax mu nekk mbugal mooy yàlla dafa def ci doomu aadama gis nga bu ñu amoon ak mbootaay kilifa goo gis rek maanaam ngëneel a tax ñu teg ko fa ngëneel parce que mbootaay dong wala am nat suñ ko doon jiital dañuy xool ki yaakaar ne moo tane ci ñun wala moo gën ci ñun. Mhm. jiital ko fa. Mhm. boo demoon ci garage ak sóor yi sax du fekk mukk ay nit yu dajaloo di wut njiit tànn ki yées ci ñoom. Mhm. saa bu ñuy wut njiit rek dañuy xool ki nga xam ne jàpp nañ ne kii moo gën ci ñun suñ biir ñu teg ko fa. léegi nag ginnaaw bu nit ñi jàppee ne ba natt seen xel yi ba jàpp ne yow yaa gën ci seen biir. ñu jox la ba noppi yëg na nag maanaam maanaam sa tuuti lu bon maanaam lu rëy lay doon ci ngon. parce que tànnu nit ñi tax moo moo moo tax moo tax njiit loo xamante ne daf laa jiite ba noppi melut na mu war a mel. loolu moo tax mu nekk mbugal ndax bu fekkonte ne ndax saa boo xëyee gis ku melut na war a mel. waaye ki nga xam ne yow da nga koo ko dañ koo segg ci biir segg yi di ba jàpp ni kii moom maanaam ni mu war a mel la mel. Mhm. maanaam lu tuuti lu tuuti lu bonam mooy lu rëy ci lu bon. Mhm. parce que dafay mel ne nit ñi maanaam kenn ku nekk rek soo defee dara day gisaat moom ñàkk xalaatam ak mhm. njuumtey boppam lay gisaat ci sa biir njuumte loolu moo tax euh, aaya bi nekk aaya bu bu kiimaane mm-hmm. jërëjëf Cheikh Bara euh, suwaay bu ci li nga xam ne moom la ñu fësal léegi ci euh, ki nga xam ne mbali Serigne Moustapha d'abord si niñ ko waxee anniversaire am waaye tamit aaya bi nga xam ne daal na ko tënk ci li nga xam ne moom mooy ni ñuy doxalee ci suñu wàllum réew diggante njiit ak ñi nga xam ne ñoom la jiite mm. jërëjëf Fatma Sendir jaar fi sëñ Bara jaar rek ñaanal ko moom Serigne Moustapha ci bësam bi la nga xam ne ci lay feete anniversaire am mhm. mu nekk kilifa gu goo xam ne kilifa gu mat kilifa la mhm. ci façon bi muy doxalee yàlla may ko itamit lu jafe loo xam ni dafa bokk ci li ñuy xamee màndargam nitu yàlla daf ci amee yu bari ci yàlla def nit ñi ci ci seeni xol maanaam def la ci xolu nit ñi te defaloo leen dara sama góor ga sëñ màggat moom ko daan wax mhm. ni soo bëggee xam nitu yàlla rek xoolal koo xam ne mu ngi ci xolum nit ñi te boo xoolee tey da nga naan lan la ma sëñ Moustapha defal mhm. ci wàllu luñ mën a gis doo ko gis waaye jariñ na la ci xam-xam wax na nga dégg mu wax masala ko ni ko sëñ Baara waxee wala mu tekkil la benn aaya alxuraan boo xam ne mhm. na ko waxee da nga ciy am beneen déggin euh, ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax euh, li mu indi nag ci wàllu kilifteef xam nga ñaar yi dafa am yu metti waaye benn bi day dafa rawati kilifa gi nga jiite mu mel ni mu war a mel kooku dafa doy waar am njaboot sax ñu dëng loolu dana la metti comme ni nga ko waxee mhm. da nga da da da nga xaw a am lu la metti mais kilifa gu dëng moo gën doy waar mhm. parce que doo ci mën na dara benn waaye nga toog fu ñuy xasee sa kilifa te doo ci man dara mhm. li la ko waral mooy kilifa gu dëng moo tax euh, euh, ay kàddu la yu am solo xam naa ni waxtu waa ngay daw du guddal. beneen bi mooy yàlla daf ko may loo xam ne itamit euh, lu doy waar la kenn mës a gis sëñ Moustapha Sy di def publicité maa nga bërëb sàngam fii laay waxtaanee. Mhm. mais li jaaxal nit ñëpp mooy sëñ Moustapha day xëy rek da ngay xëy rek gis ko moom muy waxtaan. Mhm. kenn mës a gis publicité buy daw ñu ne Moustapha Sy dine yi ñoo koy jàllale. Mhm. dañu am conférence bërëb sàngam dañu am mais da ngay jékki gis nit ñi. sa <coughs> njëgu. mu yàgg fi lool waaw te ànd ak wér parce que wax dëgg fa yàlla man bokk naa ci ñi nga xam ni sopp naa ko lool parce que dama koy euh, déglu waaw dama koy déglu damay déglu tamit euh, way juram Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al na yàlla dool ay leeram lu bari dama koy jàng ci ñoom euh, li Cheikh Bara wax sànq ci wàllu dégg-dégg parce que beneen ab ustaas wax aaya firi ko paren saa yi man damay jàpp ni man mi lay jàngut sax maa ko ëpp dégg-dégg ci aaya bi mu ma tari léegi ak ni mu ko fire parce que paren saa yi day am quoi parce que dégg-dégg dafa am solo loolu euh, leneen la parce que nit ki day wax rek selon moom ni mu déggee mais paren saa yi li sunu borom di wax ne je parle en parabole am na loo xamante ni bii boo amut benn tamit niveau bi paren saa yi moo tax ñu bari Euh, di am ak tamit problème sax ak Ahmed Khalifa peut être ci dégg-dégg yi nga xamante ni bi peut être gën na leen yaatu dégg-dégg wala ëpp na leen connaissance ci yenn yu bari loolu bokk na ci li nga xamante ni day def li nga xam ne mooy borom xam-xam mais xam nga tànn tànn moo nekk loo xamante ni bi du doy waar parce que ñun la plupart suñu njiit yi ñu tànn defe naa ni war nañu xoolaat niñ leen di tànnee mm. parce que par yenn saa yi du ma tànn directement nit ki mais damay tànn ci tànn son yi bu wala ma tànn ci tànn Seex Baara par yenn saa yi loolu day am quoi maanaam son yi bu tànn na diw man son yi bu laa xool moo ma doy ma tànn léegi lu tax son yi bu tànn diw moom xaw ma ko mais man daal moom laa tànn parce que tànn na diw ma tànn ci kii boobu mais du ma xoolal sama bopp directement moo tax la plupart ñi nga xamante ne bi ñoom la ñuy fal parce que tamit loolu ba ci médias yi dañuy orienté nit ñi. parce que da ngay gis tey président yoo xamante bi tey Abdoulaye Wade am na ñu bari ne dem nañ ba ci biir ñu ne ah, kon ndekete kon ndekete kon ndekete parce que ñi ñu doon joxoñ ci ay jamono. naan ñu lii baaxut lii baaxut lii baaxut ñoom ñëpp tey ña nga fële. Mhm. te la fi nekkoon ñi ngi fi et pourtant waxatuñ. donc am na ñu bari dañ leen a orienté ba tax ñu bàyyi li fi nekkoon tey boo xoolee journaliste yi nga xam ni ñoo wër Macky Sall yëpp ñoo nekkoon ci plateau yi daan xarab. Mhm. tey loolu yëpp mi ngi waat fii mais kenn wax maanaam dañoo <laughs> nit ñi dañ leen a orienté formaté leen. Mhm. ba gëmloo leen ne leen lii baaxut. te tey ñu doon bañ troisième mandat Abdoulaye Wade tey ñoom ñooy dëggal troisième mandat comprendre nga c'est que boo gisee tamit ci li nga xamante moom la wax noonu ci wàllu ñi ñu jiite ak ñi leen jiital maanaam ñi nga xam ne ñoo leen jiital ak ñi ñu jiite problème di am ba ñee bu ñu kee bu waxee ñii duñu dégg ñii bu ñuy wax kële du dégg parce que dafa am intermédiaire yoo xam ne ñoo nekk ci diggante bi intermédiaire yooyu nag ñoom ñooy problème bi mais nit ñi bu fekkonte ni bi dañuy gëstul seen bopp Cheikh baara mi action son bu ñooy dem man Cheikh Bara mi maa koy seetantal sama bopp béti du moo may orienté wala Fatoumata moo may orienté mais man maay xoolal kii ba mu doy ma peut-être que dinaa gis ci moom lu ma neex lu war a mën a tax ma tànn ko waaye loolu mooy li nga xam ne mooy sunu problème donc il faut que nit ñi di xool bu baax a baax nit ñi tànn mhm. waaw man damay faral la wax ni njiit moo xam njiitu réew la wala ki nga xamante ni moo lay jiite ci sa tariqa wala ci sa ci sa ci sa euh, religion mm-hmm. njiit na la doy parce que njit aussi bu la doyee ba pare nga am confiance ci moom mhm. soit ci doxalinam wala ci waxinam mhm. wala ci nàngam parce que nit aussi dina wax nga xeeb ko du la du doy mhm. wala mu wax ragal loola wala dara donc je veux dire que ni moo xam njiit yi muy wax nii j'ai bien aimé li ñu li ñu bind noonu ci suuf que ni euh, le nu des des politiques et le nous des euh, du peuple euh, c'est pas le même donc c'est pas le même parce que bu fekkee dañ naan ñun ñoom peut-être dañuy waxee ñun seen mais da ngay xalaat ñi nga xamante ni ñoom la la yàlla booleel. Mm-hmm. ñoom la la yàlla teg ci seen kanam. te te ku mel ni sëñ Moustapha fa laa waroon a commencer sax euh, ñu ngi koy ñaanal suñu borom mm-hmm. mu mu mu gën a yokk fanam. Mm-hmm. gën a gën a gën a wéral ko. Euh, daaw j'ai bien mais man ay waxtaanam neex na ma parce que sëñ Cheikh euh, yàlla nañu ko yàlla fayal moom it dama doon déglu yu bari ci ay waxtaanam. mais sëñ Moustapha boo xoolee tuuti rek. dégg rek da ngay defe ni sëñ Cheikh ay wax mhm. waaye bu rawatina nag nga toog di ko déglu mhm. kon yàlla ñu leen yàlla fayal di ko ñaanal anniversaire bi mu gën ko di yàgg di euh, feete amin amin mhm. ajaratu